man investisseur la un homme d'affaires la et su ma demee bay investir damay xaar réussite et ku xaar réussite mooy yaa ngi bëgg a liggéeyal sa réew sooy liggéey sa réew il faut nga liggéey jàppale état ndax état rek moo la mën a encadrer pour nga réussir man en tant que homme d'affaires duma contre état damaa jàppale état te su may jàppale état tamit du am naa ku ma ma far politiquement waaw nang fu ma far politiquement mais j'ai pas besoin di dem si ay meeting pour wane ni man la wala leneen parce que je le fais pour l'intérêt national en tant que investisseur et en tant que qu'acteur de développement pour aider réew mi mu jëm kanam un investisseur warul mës a contre tu peux investir et contre le régime ou bien l'état xam nga euh, artistes yi léegi avant sax ñuy nekk artiste dañuy jaay seen bopp seen gox donc ñoom seen gox la ñuy amee doole kenn mënul na yeewu suba nag am doole national te nit soo démarré sa gox sa gox ñoo lay lancé et les jeunes talents la koo si gis dafa mel na nga am un mouvement de soutien bu nekk sa yow te sa gox lay doore te donc comme ni ngay wax nag bala ngaa bale buntu kër jàmbur nga bale sa buntu kër te j'ai vu les jeunes talents dañu commencé si ASC yi si nawetaan si leneen ba fël moo tax seen territoire ba ñuy nekk mobilisation bu am soo lañ fay nekk ma xam suñu leen dajale woon tamit dañuy fël la xëy na au niveau national lañ leen dul dégg mais fa ne ñoo leen di dégg waaw jamono nga yokk xam nga ñooñu naay club naay club pour ba pour naay club ak show dafa différent soo nee grand théâtre ni foire ba show la club t'as pas besoin d'un artiste bu mag a mag a mag parce que artiste mag a mag day dénaturer club mais xam nga nit soo dul def lu social mooy dimbale defe na mooy jàppale ku jàppalewul nit looy jàppale waaw soo investir soo waree réussir du ay nit lay jàppale kon nag quand tu investis et y du monde derrière toi qui t'aide tu vas retourner la balle pour aider les autres. Il faut faire du social parce que tu investis. Et quand tu investis et tu réussis, c'est parce que y, a une monde, y, a, un monde derrière toi qui t'entoure. te nit lu mu am nit moo ko te kon sooy mayee nit sooy mayee nag da ngay may nit ñun duñu ay tubaab yi nga xam ne ay xaj ak ay muus la ñuy denc seen kër ah.